waaw dañ ko affiché waaw jërë ngeen jëf euh, ñi nga xam ne nii ñoom ñooy topp Ñayeen TV euh, ñoo ngi fii ci centre d'examen muy BFM 2024 euh, fii ci Ñayeen ñu fàttali nag ci jury bi nga xam ne nii mooy jury bi ñu créé ren fii parce que inspecteur de l'éducation et de la formation dafa jàpp ne Euh, centre bu Ndiougent ak centre bu Malem Odar moo fi doon am parce que ñeneen di doon déplacé wu ñëw centre boobu ca Malem Sagna di déplacé wu Dianké di déplacé wu dem Ndiougent pour désengorger centre yooyu aussi def de sorte que vraiment élèves yi duñu dépayser wu te dinañ mën a adapté ci milieu bi nga xam ne nii mooy seen milieu proche seen environnement proche bi nga xam ne nii ci la ñuy jàngee tax na ñu Des initiatives initiative créer centre yu Mais ñeneen nag bokk ci ñu fàttali ne tey ñu ngi comme président jury monsieur Ahmad Diouf le principal du CEM de Dianké souf tey moo fi ñëwoon ànd ak ay surveillants, and ak ay surveillants mais and ak ñi nga ni ñom ñoy les professeurs yi corriger épreuve euh, en présence de la sécurité la gendarmerie nationale gis nañ ñoon accompagné des ASP ñu pour assurer la sécurité fekk nañ fi aussi un comité comité d'accueil boo xam ne ni vraiment nekk na à la hauteur parce que depuis le début de notre séjour ñu ngi fi di ñu accompagner tout sur tout ce qui est humainement possible wax dëgg yàlla ñu ngi ko doon def pour que l'accueil soit au rendez-vous donc nag à l'issue des épreuves tey fii ci centre bu Niakhène amoon na soixante-huit candidats yu fi bindu mais biñ ñëwee ci jongante bi gis nañu soixante-sept ñoom ñoo présenté wu ñoom ñoo composé réellement benn absent lañ amoon ci biir 67 yooyu nga xam ne demoon nañ ci jongante bi ci premier tour ñi nga xam ne jàll nañ d'office ndax atteindre nañ la barre des 210 points au minimum pour ñi nga xam ne dañuy def EPS gis nañ ne 26 élèves jàll nañ ci muy ñaar fukki élèves ak juróom-benn ci deuxième tour bi ñi nga xam ne dañ leen joxaat chance pour que lundi prochain le 29 ñu mën a dem ci épreuve deuxième tour bi ñu leen tuddee les admissibles ñu ngi toll ci 20 di ñaar fukki élèves. ñi avons une amuñu chance jall ci première comme deuxième tour bi ñu ngi tollu ci ñaar fukki élèves ak benn leur nak moy déterminer examen toujours am ñu toujours am ñuy jall ci deuxième tour pour jongantewaat mottali seeni poñ waye à chaque fois aussi le plus souvent c'est na dina am benn limu élève bo xamné am chance ci kon en tant que membre euh, du jury ñu ngi témoigner suñu satisfaction bi ñu am fii parce que noté avons fi benn cas de tricherie noté avons fi aussi benn cas de violence parce que sécurité bi mu ngi fi te aussi on a trouvé des élèves disciplinés yoo xam ne ni vraiment ñu ngi nañ def examen bi dans le calme dans la concentration ba tey résultat bi génn ni ñuy souhaité ñi nga xam ne ñoom ñoo jàll au premier tour yàlla leen jik ñi nga xam ne ngi dem au deuxième tour ñu ngi leen di souhaiter vraiment ñu redoubler d'effort redoubler de concentration pour que deuxième tour nous puissions subir dans les conditions les meilleures Nous nga qu'ils ont eu la malchance de ne pas réussir leur examen Nous les encourager nous nous bu la prochaine fois peut-être ce sera leur chance donc au total le euh, comité d'accueil nous ñu Nous remercier Nous ñu remercier parce que l'accueil est vraiment euh, le CGE du CM de Niayes toutes les dispositions utiles tout ce qui est humainement possible pour que l'accueil soit vraiment chaleureux ça a été le cas Nous mën témoigner en tant que membre du jury mais comme secrétaire du centre 2024 euh, ci Bonsoir chers élèves. Donc nous allons passer à la proclamation des résultats. Donc avant cela, je voudrais vraiment féliciter ceux qui ont réussi, mais également encourager ceux qui n'auront pas eu à réussir ou franchir l'obstacle et souhaitons que ça soit le meilleur de leur sort. Donc, les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis à l'issue des épreuves du premier groupe, par ordre de mérite. Sohnandao, CM Nyaen, Fatou Gueye, CM Nyaen, Ndey Fatou Sar, CM Nyaen, Aminatou Niach. CM Nyaen, Fodendao, CM Niayene El Hadj Mouhamadou Dieng Diallo CM Niayene Assane Wilane CM Niayene Aram Ndaw CM Niayene Layine Cissé CM Niayene Aysatu Cissé CM Niayene Adama Dioum CM Niayene Ousmane Dia CM Niayene Mohamed Moustapha Diallo CM Niayene Khoja Wilane CEM Niayene Serigne Fallou Cissé CEM Niayene Awa Wilane CEM Niayene Khady Diop CEM Niayene Salla Gueye CEM Niayene Saliou Boy CEM Niayene Ndeye Sout Diallo CEM Niayene Maymouna Wilane CEM Niayene Yacine Fall CEM Niayene Pape Samba Wilane CEM Niayene Mariama Dramé CM Niayene Aram Ndaw CM Niayene Ndeye Fatou Ndimbalane CM Niayene fin de liste pour les admis au premier proclamer les résultats du second groupe deuxième session 2024 par ordre de mérite par ordre alphabétique par ordre ordre alphabétique hein par ordre alphabétique Ahmed Cissé CM Niayene Yacine Cissé CM Niayene Awa Dia CM Niayene Binta Diallo CM Niayene Boubacar Diallo CM Niayene Fatou Dieng CM Niayene Aminata Ndaw seeyam ñayeen Aram Ndaw seeyam ñayeen Xoja Ndaw seeyam ñayeen Moor Ndaw seeyam ñayeen Amin Dimbalaan seeyam ñayeen Mansour Ngalaan seeyam ñayeen Ña seeyam ñayeen Aram Ña seeyam ñayeen Ibrahima Ña seeyam ñayeen Jaara Sall Seyem Ñayen Assane Señaan Seyem Ñayen Biige Zilane Seyem Ñayen